bis bi àdduna wërngal këpp jagleeloon lu jëm ci xeex sa su tars yi màggal nañ ko fii ci réewum Sénégal ci dëkk bu sell bi ci Touba jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci mille réew ni woon fii ci dëkk bu sell bi ci Touba moom Abdoulaye Diouf Sarr di fësal ne thème bi bokk na ca ñu daal di gàll ab liggéey ñi nga xam ne ni dañoo yore kàddu ngir ñu daal di gën a ñaax askan wi ci jàngoro ju bon jilee waaw tey dañoo ñëw euh, Touba pour lancer journée de lutte contre la tuberculose tuberculose mooy saxat su bon dooñ xamante ne dana sonal nit ñi lool ñun senegal comme adduna bi yëpp ñu dugg si xeex boo xamante ne dañ ko war a gagné avant 2030 fexe ba tuberculose génn si adduna Sénégal nag war si jouer rôle bu am solo te ñu mën ko ñu ne nag si journée bii ñuy laa tey dañuy jël mbir mi dénk ko ñu xamante ne am nañ kaddu si réew mi ku am kaddu si réew mi nag moo ko xamante ne leader nga pour que nga mën gunge askan bi ba képp koo xamante ne feebar nga te xamoo ko wala nga feebar te faju joo ñu yóbbu la parce que mbir mi li si gën a jafe du ñi ñu xam déjà te ñuy faju li si gën a jafe mooy ñi ñu xamagul wala ñi xamante ne xam nañ leen mais yóbbu ñu leen leader yi nag lañ demandé ñu jàppale ñu si moom Abdoulaye Diouf Sarr di fësal ne lu tax ñu tànn dëkk bu sell bi ci Touba moo ne dëkk bi bari na loolu lu muy dajale ab mbooloo waaye tamit rax ca dolli ab sell bi yoon la. ñu jël Touba lu tax ñu tànn Touba nag si mbir moomu parce que déjà Touba ville carrefour la boo xamante ne vraiment ñu fi dajee bëri na lool ñu yaakaar ne waxtaan na fu lu mel nii dana am solo mais aussi Touba dëkk la boo xamante ne si dëkk yi dëkk dëkk leader la bon nag puisque mbir mi dañ ko dénk effectivement leader wu réew mi pour que ñu porter donc combat boobu. yaakaar naa ne choix boobu aussi choix bu am solo la. ginnaaw bi ki tëjtal kàddoom Abdoulaye Diouf saax di fësal jéego yi nga xam ne ni nguuru Sénégal mi ngi koy amal ci wàllu wér-gu-yaram ci dëkk bu sell bi ci Touba. bokk na ca poste de santé yi nga xam ne dañ leen a def leen ay centre de santé waaye itam ñeenti l'hôpital yi nga xam ne ni nguuru Sénégal sumb na koo amal ci atum 2018 mi Touba bokk na ca Kédougou ak kafrin ñuy wax ne nag Touba. li ñu fi soxla en matière de santé ñu ngi siy dox ay jéego yu am solo bu ñu toogee ba léegi bi ñëwee yax wan nañu ay poste de santé poste de santé yoo xamante ne dañ leen dañu waxoon ne ñu gën a jàppale askan bi pour def ko ay centre de santé mooy yokk seen jumtukaay yokk seen ressources humaines loolu def nañ ko ba pare poste yooyu yëpp léegi ay centre de santé lañ affecté nañ fa ay médecins ba pare ñu ngi relever plateau médical bi loolu dafa am solo li ñuy defar mooy euh, ñeenti hôpitaux yu mag yu ñu nar a commencé en deux mille dix huit am na boo xamante ne commencé nañ ko déjà ci biir Touba.